El Malik fi nga xam moy cette 7TV après l'agression de Maimouna Ndour Faye d'abord abord visiter gennat première réaction de El ginaaw biñ ko nuyo wa waaw euh dañ fi ñew rek euh, en tant que chargé de communication bu PASTEF mais aussi bu coalition Diomaye Président hmm. euh, xam ngeen ne ñun ñoy en contact avec la presse. donc euh, lu dal ci kaw presse bi tamit euh, si dañuy jàpp ne euh, kenn waruñu cee jiitu mm-hmm. li xew nii lu ñuy naqarlu la encore une fois mm-hmm. ni ñu ko yàgg defee ci xew-xew yu ni mel mm-hmm. ndax dafa commencé di bëri wax fa dëgg yàlla su ngeen fàttali fan yële ca ginnaaw ku ci mel ni Pape Makhtar Diallo ak maam Biram Wàcc gis ngeen ni ñu leen fi agressé ci seen oto waaye tamit ku mel ni soxna ab sa Anne ci cadre liggéeyam ngeen gis ni ñu ko agressé ku mel ni Dame Mbodj jóge na fi émission xaw ci ñàkk bakkanam nga gis bal ñu dóor ci otoom euh, tey mu nekk soxna Maimouna Ndour Faye ñi sant yàlla nag ba nga xamante ne ni euh, en tout cas hôpital euh, stabiliser nañu ko parce que mënoon na jur jëye ju kenn xamul fu mu yam te wax dëgg yàlla jàmbaar la femme boo xamante ne nii réussir na entreprendre presque la seule femme bu am groupe bu ñu mel ci presse Sénégal euh, ku mel noonu wax dëgg yàlla dañuy jàpp ne jàmbaar dëgg la mën nga bañ a d'accord ak moom ci doxalin ak yu ni mel waaye di nga ko reconnaître que ni wax dëgg yàlla euh, li muy def euh, mu ngi mu am na ci engagement Euh, ñun am nañ ay relation euh, particulière yoo xamante ne nii dañuy faral di waxtaan fii 7TV dañ fiy ñëw saa su ne yaakaar naa barki démb la fi Fadilou jógee démb gis ngeen fi biram xuja loo waaye li ci ëpp solo rek mooy ñu fexe ba yu ni mel ñu bañ koo politiser ak di ko xeexee politiquement mm-hmm. ndax loolu lañ commencé seetlu euh, te li ci doy waar jógewul sax ci parti au pouvoir bu weesoo xëy na yenn journalistes yoo xam ne Nous naa tudd sen tour nga dem sax ba ko ak politique di ko opposants aussi ci mel lañ di euh, parce que japp euh, du respect sax ci ki nga en tout cas euh, ndogal bi dal ñuy encore une fois mu retrouver sa santé le plus rapidement possible dès si commencé waat ay émission nous ñuy aussi euh, que suñuy euh, autorité en tout cas policière que ce soit police ou la section recherche nous en tout cas identifier l'auteur ou wala auteur yi waaye tamit ñeneen déposer plainte nous diligenté aussi Ce qui fait ñu en tout cas euh, sentir qu'il y a une sécurité et qu'il y a une farouche lutte contre l'insécurité qui prévaut dans ce pays donc loolu rek lañ ñëwoon woon ko ci euh, yokk yaa ngi koy junj sànq mbirum euh, politisation affaire bi ni mu demee ñu si bari ñu ngi koy commencé di politiser ñu si joxoñ baaraam mu tuuma sax waa passé fii nii voilà ñoom la ñu moom ñoom la ñu joxoñ baaraam mu tuuma ñu ñoo ko def d' après euh, information yi nga xamante ne commencé nañ ko gis si réseau yi loolu en tant que communication chargé de communication Pastef wala boog ex Pastef loolu bëgguma ci sori ndax ñun Pastef xam nañ ñu bëgg te am na ñoo xam ne xëy na bu ñu sañoon euh, lépp lu bon lu xew ci réew mi rek ñu ne Pastef la wala bu ñu sañoon sax ñun ak suñuy leader ñu ñu dee ci kaso bi loolu la yàlla dogal te ñenn si ñoom ci opposition bi la nekk ñu leen di gis chaque jour mais seen xol mayul leen euh, ñi gis bëgg gi nga xam ne ak jox bopp gi nga xam ne askan wi jox na ko bopp euh, Pastef ma leen di ñaanal rek xolu muñ te xam ne incha allahu rabbi réew mi ci loxo Pastef lay mujj